C3S am machine ak i outillage yu baax am na ay xeetu verre bu ngeen soxla ay plexiglas PVC ngir seen création wala décoration am na ay panneau composite alucobond ak ay profilé mur rideau ngir yokk taaru seeni fasad bu dee décoration C3S dina leen defaral seeni buro walla seeni kër ci noo leen ko bëggee ak i mobilier inox wala alucobon ci ay yi yu rafet ngir gën a jege client yi ak dab seen bànneex c 3 gën a yaatal toogaayam ci ndakaaru ak ci biir réew mi ndax C3S am na ca Yaraax Soprim Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn

joxe ak ko aaj kan ko jox yàlla na ñëpp am ngërëm ci Bamba mën ko jox seen saa su ma am seen saa leen fàtte seen saa su ma am seen saa su ma am wax naa doon am am seen saa du màgg wax naa doon am am président ba ko jox yi am na ngërëm président ko jox am na ngërëm seen saa ah ah defar naa ah ah sama tool naa defar suñu mbir bàcce na ah ah ah ah alhamdulilah mu sa ah ah ah sëñ Tuba tawoo ah ah ah mu sa ah alhamdulilah mu sa ah ah ah ah sëñ Tuba tawoo ah ah ah mu sa ah ah ah. sëñ Ba si ah bari bari bari suñu mbéy si ah ah ah xam ne sëñ Tuba ah ah ah.

À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 864 75 15